Oh, néew xam-xam Adama donc loolu moo nekkoon li gën a fës ci euh, yéenekaay yi euh, ci euh, bisub tey bi ma bàyyi Adama rek mu dikk ak yéen ci la rubrique sport. donc ana dañ lay jaajëfal encore une fois je pense que amul amul benn benn benn gagnant je pense que tout a été bien fait donc dañuy ñëw rek ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, xibaaru tàggat yaram donc dañ koy commencé ak réewum Sénégal ak euh, basket bi donc ci bool bi nga xamante ni ci nga nekkoon sànq donc si dernière journée bi doon am démb ci dimanche bi gisoon nañ ki nga xamante ni moom mooy le président de la brique Bassirou Diomaye Faye ànd ak le président rwandais Paul Kagame daal di suivre ensemble match bi nga xamante ni moom moo doon dox ci diggante AS Douane ak équipe bii di APR di armée patriotique de Rwanda bi nga xamante ni moom moo nekkoon dernière journée bi donc AS Douane daal di koy daan lu tolloog 70 sur 54 donc mu nekkoon benn moment bu symbolique boo xamante donc les deux présidents partagé nañ ko mais aussi à euh, l'âge daal dina ci profité daal di jël li nga euh, deuxième place bi ci euh, le classement donc nga aussi moom Euh, APR yaakaar naa ci euh, groupe bi nga xamante ni bokkoon nañ ci euh, moom mooy daal di génn wala boog moom mooy daal di bañ a qualifié ci li nga xamante moom mooy final ba foofu sa Kigali di capitale Rwanda donc ci classement boobu noonu ki nga xamante moom mooy River Monastir nekk fi nga xamante moom mooy Tunisie ñoom ñoo jël troisième place bi donc ñoom ñett ñoom ñooy ànd dem fi nga xamante moom mooy Kigali ci capitale Rwanda ki nga xamante moom nekk ci Rwanda ñom ñoy daal di toog ci li nga xamanteni mom moy tournoi bobu euh, gannaaw basket bi aussi dinañ wax ci li nga xamanteni mom moy euh, football ak euh, Ligue 1 première Ligue 1 sénégalaise de football donc wax ci résultat match yi nga xamanteni mom mo doon am niki samedi bi donc Tëngéej FC doon dalal Casa Sport daal di koy daan benn bal ci dara Tëngéej FC actuellement le champion ci fi nga xamanteni mom moy Ligue 1 bi pour l'instant moom moo nekkagum ci kaw donc jamono bu Fatick doon dalal ki nga xamante ne moom mooy Sonacos jamono daal di koy daan benn bal ci dara donc Guédiawaye FC euh, doon dalal Dakar Sacré-Cœur donc surprise wu euh, mun naa ne Ligue 1 bi ci euh, journée yi passé moom moo nekkoon match boobu parce que Dakar Sacré-Cœur daal dina koy daan ñeent bal ci dara ki nga xamante ne moom mooy US Ouakam ci dimanche ba tey doon dalal équipe bii di US Gorée US Ouakam daal di koy daan benn bal ci dara Linguère doon dalal équipe bi nga xamante ni moom mooy Jambar FC donc Linguère daal di koy daan benn bal ci dara ndiki tey nag nag dinañ am yenen ñaari match yi wara euh, clôturer 23e journée Ligue 1 sénégalaise de football donc génération foot wala dalal AS Pikine fofu sa stade Ladjor bi nga xamanteni mom moy mooy stade de Mbour wara dalal euh, Jaraaf fofu sa stade Caroline Fay bu Mbour donc dañu ñëwaat un peu rek ci classement Ligue 1 sénégalaise de football avec euh, Teungueth FC bi nga xamanteni mom mo moo ci bop bi ak 46 points donc Jaraaf nekk ci 2e place bi ak 38 points en attendant ñu xaar marsam bu wara dox tay bi nga xamanteni ni mu ngi wara dox tay ci digganteem ak stade de Mbour donc nga xamanteni mom moom mooy Dakar Sacré-Cœur ñëw ci troisième place bi ak 36 points Guédiawaye FC ci quatrième place bi ak 36 points AS Pikine euh, ñëw ci li nga xamanteni mom moy 5e place bi ak 31 points en attendant mom itam euh, match bi mu wara amal tay fofu sa Ladior contre Génération Foot ki nga xamanteni mom moy Sonacos ñëw ci e place bi ak 31 points mom itam US Gorée ñëw ci septième place bi ak 30 points Lingère ci e place bi ak 27 points donc US Wakam daa dee am 26 points ñëw ci neuvième place bi donc Génération Foot nekk ci e place avec 25 points en attendant moom itam match bi war a dox tey ci digganteem ak AS est ki nga euh, ci 11e place bi ak 23 points moom itam war a amal tey euh, match contre Jaraaf ki nga xamante ni moom Casa Sport classement bi ñëw ci 12e euh, place avec 23 points jamono de Fatick moom moo ci 13e place avec 22 points Jambar FC daa di ñëw ci mujjeelu classement bi ak li nga xamante ni moom 18 points. donc ñu demaat ci li nga xamante ni moom mooy Ligue 2 sénégalaise de football ba tey ci 23e journée bi donc CNEPS Excellence doon dalal équipe bii di Kër Madior niki samedi bi donc ñoom ñaar dañoo daal di pencoo ndam demul ndam dikkul euh, benn bi la ku nekk am ci boobu la jongante ki nga xamante ni moom mooy AS Douanes doon dalal RS bu Yoff boobu la match aussi ndam demul ndam dikkul zéro bi partout la HLM bu Dakar doon dalal Walidaan Walidaan daal di koy daan benn bal ci dara ki nga xamante ni moom mooy Amitié FC doon dalal ci dimanche bi équipe bii di Thiès FC la match yi itam ndam demul ndam dégul dañoo daal di janoo benn bi uh, ku nekk ñaari tali doon dalal Oslo donc boobule match yi itam ñaari équipe yi ndam demul ndam dégul zéro bi partout la Ndiambour doon dalal équipe bii di Duc donc boobu le match euh, moom moo ko daal di dóor benn bal ci dara en naa ñu xaar match bi war a dox tey ci diggante Demba Diop FC ak ki nga xamante ni moom mooy Asel bu Rufisque donc ci classement bi ñu ñëw rek ci ñeenti première yi donc daan moom moo ñëw ci kaw ak 39 points ki nga xamante ni moom mooy Oslo ñëw ci deuxième place bi ak 39 points moom itam AS Douane daa dee wàcce ci troisième place bi ak 37 points ki nga xamante ni moom mooy HLM Dakar daa dee ñëw ci euh, quatrième place bi ak 35 points ñi euh, mujj ci classement bi moo di Kër Madior ci treizième place bi ak 18 points Demba Diop FC euh, ñëw ci li nga xamante ni moom mooy quatorzième place si mujjeelu classement bi ak ak 17 points donc loolu moo ndar képpee xibaaru tàggat yaram fii ci réewum Sénégal donc ñu dem rek ci fi nga xamante ni moom mooy à l'international dañoo génn nag ci weekend boo xamante ni c'est-à-dire actualité sportive yi dañoo xaw a bari. Mm. donc ci weekend bi ñu génn le Real Madrid bi nga xamante ni daal dinay nekk champion d'Espagne pour la trente sixième fois daal dinañ célébrer boobu le titre donc euh, mu nekkoon benn moment bu historique boo xamante ni les jours du Real Madrid partagé nañ ko ak seen ay supporters ci boobu le weekend itam ki nga xamante ni moom mooy Paris Saint-Germain daal dinay fêter moom itam li nga xamante ni moom mooy champion euh, euh, de France bi nga xamanteni jël nañ ko mais aussi mu nek ben fête bo xamanteni profiter profité nañ ci pour rendre ci hommage ki nga xamanteni mom moy Kylian Mbappé bi affiché son départ nga xamanteni ginnaw bi mu defee juroom ñaari at ci club bobu di euh, Paris Saint-Germain dina fa daal di jóge moom itam Kylian Mbappé donc ñu fatel leen rek daal dina fay jouer lu tolloog 307 matchs daal di fay duggal lu tolloog 256 buts ak 95 passes décisives pour l'instant nak écho yu ñu am yu bari moom mooy Kylian Mbappé équipe bii di Real Madrid la gën a jege waaye ba tey amaguñ ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy certitude ba tey ci weekend boobu ki nga xamante moom mooy Kalidou Koulibaly euh, Kalidou Koulibaly di l'international sénégalais moom itam daa dinay féete championnat titre euh, titre champion d'Arabie Saoudite bi nga xamante ni euh, moom moo nekk ci saison 2023 2024 ak équipe bii di Al Hilal al al donc mu nekkoon aussi des moments historiques yoo xamante ni donc l' international sénégalais moom passé na ko ensemble ak club boobu di al ilal euh, keneen ki ñuy euh, tudd ci international sénégalais yi moom mooy Bouna nasar moom itam sànq ana yaa ngi ciy ñëw mu def ses adieux au club bi nga xamante ni moom mooy Bayern donc moom moom moom Bouna Sarr nag bu ñu seetloo gëj naa am li nga xamante ni moom mooy temps de jeu ci euh, club boobu donc gis nañ aussi hommage bu chaleureux bi nga xamante ni waa club bii di Bayern rendre nañ ko ko mm-hmm. ci li nga xamante ni moom mooy départ am donc ñu ndarkeepoy ko ak xibaaru ki nga xamante ni moom mooy eh, Habib Beye sànq aussi yaa ngi ciy ñëw moom mi nga xamante ni dañ koo tabb meilleur entraîneur national 1 euh, ci euh, foofu ca foofu ca France ak équipe bii di Red bi nga xamante ni def na fa lu tolloog ñetti at moom Habib Beye daal di parvenir yéegal équipe bi ci li nga xamante ni moom mooy Ligue 2 mais aussi euh, li triste ci boobule boobule bii la nomination moom mooy Habib Beye dafa annoncé li nga xamante ni moom mooy départ am bëgg euh, jugee fi nga xamante moom mooy Red Star daal di dem ci yeneen i club yu euh, gën a mag tey si gis nañ ni moom Habib Beye bëri na ay club yu bëri yoo xamante ni ñu ngi koy topp ngir mu daa di ñëw yu ko mel ni club nekk ci li nga xamante ni moom mooy mooy Premier League ba tey amagul benn décision boo xamante ni moom l'ancien international sénégal abib Beye daal dina koy jël en je pense lii moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram bi niki tey altine bi ay ayca mi ngi noonu Adama ay waat dañu jaajëfal ko bu ah, baax a baax am na ah, solo nii lay demee ah, chaque lundi mu dikk ak yéen ci lépp loo xamante ne nii moo di xibaaru tàggat yaram ci biir réew mi ak ca biitim réew man nag comme sama xam-xam da cee xaw xam naa la ma cay wax du du du du du mën a bëri mais maa ngi lay dégg tout à ngay wax ni équipe bii di Real Madrid dal dinay jël li nga xamante ne nii moo di. 36e 36e titre de championnat kii championnat d' Espagne. championnat d' Espagne. Mhm. Euh, monsieur monsieur Camara ndax di ngay di ngay di ngay seetaan euh, ay ay match ak ay football ak. waaw dinañ koy seetaan euh, ana <laughs> comme ni ñuy seetaanee làmb. muy suñu sport leader entre guillemets sénégalais moom daa bëgg culture. Mhm. Real di sama équipe. ma koy supporter depuis daanaka tout le temps moom ak Marseille. Euh, France Marseille mooy sama équipe euh, Real laay supporté nga xamante ne depuis ñu leen di ay les Galactiques depuis may nekk xale xam ne bu ñu leen je me rappelle <laughs> kenn du ma jege ndax mer ak yooyu donc mu nekk 36ème titre euh, chapeau à nous les merengues les merengues c'est ça c'est exactement ça. en attendant xaar xaar Ligue des champions parce que si Fatil aussi ñoom ñoo dem final Ligue des champions ak ñi nga xamante ni ñoo Dortmund donc final boobu ñu war ko amal le premier juin incha mm. espérons non boobu moom tamit. Euh, mm. ça sera lu. non loolu moom du. comme d'habitude waaw li xale yi naan du événement. du événement ah, ah boobu <laughs> non boobu du événement. en tout cas euh, observateur yëpp xam nañ vraiment euh, on part favori.

ah yàlla na gën a yokk mais su mënoon jël pause tuuti mu jël bàyyi ne su doon lu ñuy séddale daal mën nañ ko wax bàyyi mais d'accord ma ak monsieur Camara nag quand il dit que nous partons favori man je dis que à chaque fois être favori ne veut pas dire que <laughs> mën nga nekk mën nga mën nga gagner mais quand même ñu ñu est-ce que dama ko war a souhaiter mu gagner wala ah est-ce que doo leen. dama bëgg nga rafet rek parce que tamit. Ah. <laughs> je parle sous le contrôle de Adama xam nga on a on a sorti presque toutes les grandes équipes kon ma rafet parce que City favori la <laughs> woon. ñeneen ak ñeneen ay favori lañ Bayern na favori la voilà kon mën naa ci mën naa ci rafet. rafetal rek waaw ndax bu ñuy jubilé ñu mun la ci boole. bàyyi la ngeen la man man li may wax rek mooy. Real dañoo am tendance à ce que dañuy bàyyi équipe bi ñuy jouer c'est-à-dire la plupart dañuy seetlu équipe bi moo leen di njëkk après ñoom ñu remonter équipe bi mhm. mais avec cette équipe bi Dortmund moom je ne pense pas que ni wala bok ça sera très difficile parce que gis nañ ko Dortmund ak ki nga xamanteni mom moy Paris Saint-Germain bi ñu nee pays ci bir camp mhm. c'était tout un problème pour Paris mu ñëw ci li nga mu revenir ci score bi te revenir ci parce qu'ils ont une bonne défense bi nga xamanteni euh, donc dañuy gérer li nga xamanteni mom moy match bi comme il se doit donc si toutefois ñu joom nak ci match bi mhm. ah Real c'est Real waaye le Real n'est pas n'est pas Real n'est pas Paris parce que observation bi ngay def mooy. Euh, dafa am euh, benn wala ñaar nit ñoo xamante ni tey. Mm. Euh, bu ñu doxul au niveau du Paris Saint-Germain. exactement ça veut dire que l'équipe n'évolue pas. Mm. alors chez nous c'est le c'est c'est pas ça. Mm. n'importe qui peut scorer n'importe qui peut faire la différence. Ah parce que gis nañ ko. gis nañ ko ba taay ak Ocelo <laughs> voilà. <laughs> <laughs> yàlla baax na yaakaar naa ni war nañu mën a tëj chapitre sport bi jàll ci ponk yi nga xamante.